c'est pas pour des postes wala dara mais li ma la waxoon début laa la wax pour entreprendre booy yi ah bu ñu leen joxul poste nañ leen def entreprendre financer leen ñu mën a demal seen bopp parce que ñu bari si dañu bàyyi seen liggéey ñëw dugg si biir xeex bi. incha allahu rabbi nee naa la jaaykatu gerte caaf bi sax dina gis boppam si li ñu ma la wax nii. combattant lañu bien vrai am nañ âge bu avancé mais xale yi ñu ñoo leen doon encadré am na kenn koo xam ne du ma tudd turam. c'est un officier supérieur du ma tudd turam moom mu ngi si woon comprendre nga mais bi ñu demee ba fi mu dal ni léegi lépp leer ba nit ñi bañ ragalee wax ñun si lañ waxee surtout le 10 avril 2023 jàppoon nañ sept cent sept cent détenus kenn ñemewul wax